lu ñu créé ko mooy dañoo gis ni boo nee marathon rek ni ñi xalaat ni ville la war a am wala Mbour wala les zones huppées jàpp ni également banlieue dafa bokk si si Sénégal bokk si Ndakaaru te aussi ñu remarqué ni que boo même boo demee si marathon yooyu yëpp daanaka les jeune de la yi ñoo fi ëpp ñooy ñooy courir di conquérir pour jël yenn trophée ñu ne pourquoi pas au niveau de la banlieue. ñu ne mais pourquoi pas à Kër Massar parce que boo xoolee Kër Massar c'est un nouveau département qu'on a mu nekk un nouveau défi pour tous les Massarois ñun kat on va essayer de de relever un défi nouveau muy créer un marathon le la première édition au niveau de de la banlieue mais en le faisant en Keur Massar pour boole si waa ak banlieue bi yëpp. mais daal on aimerait que ñu dëkk banlieue bi jàppale waa banlieue bi. li jiitu mooy que ni banlieue dafa bokk si Sénégal c'est pas normal que lépp lu activité yu am solo rek ñu def ko Dakar. bàyyi banlieue bi pour man banlieue bi kenn waru ko abandonné dañ ko war a dañ ko war a dañ ko war a gën a jigee dañ ko war a gën a comprendre dañ ko war gën a gën a a jàppale ndax problème yi ëpp Sénégal yëpp yëpp yëpp si au niveau des banlieues ndax lu xew ñu yóbbu lu baax ñu yóbbu si yéen dëkk yi lu bon ñuy banlieue bi la loolu dafa war dañ loolu nag ñun ñun ñu dëkk banlieue bi ñoo ko mën a dindi le moment de noppale solennel benn bi mooy Kër Massar ba léegi amul stade départemental c'est pas normal cent mille habitants amoo stade départemental loolu loolu loolu man c'est pas normal beneen également ñun banlieue de Kër Massar on n'a la plage on n'a la plage te ñu ngi dégg am na benn péage bu bus war a jaar pour barrer plage bi ak population bi loolu man c'est une erreur monumentale ñu ngi demander à que ce projet la qui consiste à privatiser la ban euh, la VDN boo ko def privé bëgg a def ay barrières entre la plage ak ak ak ak nit ñi loolu dañ dañ see lancé nag ñun on a sport comme activité principale banlieue amul dara amul piscine olympique amul dara on la plage donc plage bu ñu ko bu ko miiree wala ñu def ay clôture ñu ñu ñu bare ko day impact négativement sur le sport au niveau de la banlieue loolu moom ñu koy xeex di ko wax di ko wax président Macky Sall di ko wax le ministre du sport laaj laaj moom il est de de donc il connaît bien la banlieue plage bi nañ ko bàyyi ak jeune banlieue bi ñu mën see def seen sport